wax ñi ngi sant jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul man maa ngi tudd Serigne May Seck nekk sëriñ May Seck nekk président conseil communal de la jeunesse de Mbacké nekk le vice-président de l'association And Soppi Ndoxu Mbacké le président nekk le président de d'honneur Mabé Ndiaye mu ngi nii taxaw ci sunu ginnaaw nekk sunu mag jël liggéey bépp tegoon ko ci sama loxo ba mbir mi agsi fii loolu nag bu ñëwee dafay baax ñi def lu baax ñun duñu ay jaam ay góor lañ ñu taxaw ñu remercier leen devant tout le monde wax ne ñi ngi remercier le président de la république son excellence Macky Sall parce que ñun ba ñu juddoo ba léegi ñi ngi fekk soog a fekk inauguration kon bu ko defee danañ taxaw osé wax ko fii ku nekk nag faral fu la neex ñun benn parti lañu am muy Mbàkke Bawol de passage ñu ciy remercier aussi le ministre maire Galoba di ci jaajëfal aussi di ci remercier le xalif défunt xalif des de général des des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall di ñaan suñu borom yokk ay xéewal fa mu nekk di si ñaanal sëñ abdu Mbacke yàllaay buur nga xam ne génn na àdduna di si ñaanal représentant aussi imam Tidiane bi nekkoon Mbacke te dëdduñu parce que loolu lu tax ñu koy wax bi ñu commencé xeex bi lii du xeex sax plaidoyer la woon parce que bu ñu waxee xeex day nuru leneen donc bi loolu amee ñu dem wax leen ko mais Serigne Mountakha Bassir moo njëkk a dégg na ñun dañuy jug pour am ndox mu neex mu defal ñu si ñaan kon bu accès fii dañuy am fit ñëw taxawaat fii santaat ko bu baax a baax sant l'état du Sénégal bi nga xamante ni lii ci moom la sottee donc di ko santé aussi di remercier le maire de Mbacké bi nga xam ne affaire bi si moom la sottee fii di ci remercier aussi l'ancien maire Abdou Mbacké Ndaw bi fi nekkoon aussi remercier toute la population de Mbacké benn plaidoyer rek la ñu am monsieur le ministre liggéey bi rafet na premier ministre donc lépp jaar na si yoon coow li bari woon na ku nekk di wax de gauche à droite taxe nañu de tous les noms mais ñun benn décret la ñu am muy Mbàkke ndax kenn Serigne Touba la gënee àdduna loolu moo tax ñun ñuy rey suñu bopp ndax Mbàkke lëkk boo xamante ni lu mu am ñu yéene ko Mbàkke Bawol mais ndox mooy lépp monsieur le ministre hmm. nga ñëw ubbil ñu ko démb Mbàkke gépp amul fooy jaar la jeunesse féminine lu ñu lay wax ñun dootuñ demati fenn parce que am nañ ndox mu neex dañuy sangu suñu teen yi day rafet loolu rek ak cant la ak leneen ak leneen suñu si paree ñuy bay dunde donc dëkk bi nag am ay fleur am leneen suñu bët yi di dund loolu Mbàkke li dafa mérito lépp loolu nag bu ñu ko amee ngeen defal ñu ko dafay baax bu ngeen ñëwee fii ñu sant leen si gërëm leen ci kenn mënuñu koo teree wax parce que waxoon naa ko parce que ñun politique ñu ma sàmba politique ñu ma dem mais kii dafa ñëw nekk di def ay développement ci dëkk bi ñu war a mën a taxaw remercier ko mu fekk ko dafa neex yàlla fekk moom mu fekke beneen opposant bu fekkoon ne moo gañe woon dëkk boobaa mooy taxaw fii ñu sant ko nit ki nag loolu def suñu borom lu mu def nga bëgg koo bañ da ngay sonal sa bopp rek donc lenn li ñu ciy wax monsieur le premier ministre pour bañ la fi téye lay wax benn doléance la ñu am dañoo yoreel Sen'Eau 2 milliards 2019 ba léegi ñu ak ñoom ñu ngi ci terrain ñu ne leen duñ fay parce que li ngeen ñuy jaay jàpp nañ ne baaxul jàpp nañ ne laa wax moo boobu laa utiliser donc ñu nekk ca boobu ba léegi ñu ndox léegi dañoo bëggoon lool ñu teg ko ko côté ndox mi neex ñu continuer fay ndox mii première facture bi njëkk ñëw ñu ngi jëkkal si kàddu yi maa ngi sant population Mbacké yëpp di leen nuyu ndax tey liñ ñu won bëgg nañ ci lool nit ki nag bu la teralee boo ñëwee balaa ngay def lenn da nga koy jaajëfal ñaari inauguration moo ñu fi andi woon bi ci jiitu ci stade bi la woon fa njëkkee doog a ñëw fii muy stade bu mucc ayib boo xam ni président Macky Sall moo ko décidé woon dañu fexe yeggali ko ma jaaroon fii en tant que ministre des sports waxoon ak jeunesse bi tey jii li ñu waxoon ak ñoom yàlla may ñu ñu mottali ko. ñuy ñaan xale yu Mbàkke lii nga xam ni am nañ ko te yeneen département soxla ko nañ ko sàmm aar ko ndax seen moomeel la ñu ñaan nag stade bi ay sénégalais yu mën sport sport yëpp moo xam athlétisme la moo xam waaye football lañ ci gën a yaakaar ñoo xam ne ñoom ñoo mën ñoom Sadio jóge ci stade bi doon ñi nga xam ne ñoom ñooy andil Sénégal suba ay raaya yu bëree bëri. beneen activité bi c'est à deux cent ci stade bi muy activité boo xamante ni jàpp nañ ni xëy na sax moo dàq fi jóge ndax ndox moom dund la. bi ma ñëwee léegi maire bi ne ma depuis 1960 ñu ngi doog am ndox mu neex sama yaram dafa daw kon mënuñu lu dul rafetlu projet bi may félicité le ministre bi nga xam ni moom moo yor wàllu ndox mi Serigne bay Thiam ndax projet bi dina tax Mbàkke ak li ko wër ndax ndox mi mi ngi jógee Sadio ci conduite boo xamante ni war na mot juróom fukki kilomètre état bi def ci ñaar fukki milliards ak ñett muy Mbàkke muy fi nga xam ni ci yi jaar nañ fi ku ci nekk ci wàllu ndox di am ndox moo xamante ni ndox mucc ayib la ndox moo xam ni niñ ko waxee léegi mën na am usage yëpp di nga ci naan ndax ndox loolu lay jëkk a jariñ waaye di ngeen ci mën a bay ndax fii ñu nekk suuf am na fii mën nañ fee bay ginnaaw biñ fii sàmm mën nañ transformer fii lu bëree bare bëri ngeen amoon nag benn kuréel revendication jaadu na surtout bu nekkee revendication boo xam ne dañ koy mëne ci ay formes yu pacifique forme yoo xam ne dafa dëppoo la nga xam ni moom la yoon santaane moo tax bi nga ko waxee je suis très sensible ci loolu moo tax wax naa ministre bi ci nu mu gën a gaawee na gisee ak yéen ngeen xool li ngeen di laaj lan mooy conséquence bi ñun bu ñu ko defee la mooy conséquence bi parce que aussi un gouvernement dafa war a agir en tout responsabilité. Mais on trouvera une solution. loolu daal mën naa ko wax mooy dinañ juboo maintenant waxtaan leen ak ministre bi dina woo waa CNO pour mais na waxtaan bi gaaw waxtaan bi ba gaaw pour que ñu mën ñu proposer une solution boo xam ni dinañ ko soumettre assez rapidement à la décision du président de la République pour que ñu mën ko mettre en œuvre mais ma bëgg leen a xamal ni lépp loo xam ne askan bi lay jariñ le gouvernement est favorable maintenant nañ ko defee nag ci anam boo xam ni dina dëppoo ak suñuy charte waaye lépp luy jariñ askar bi xam leen ni dinañ ci taxaw def ko ci ni mu gën a gaaw kon ma leen di encourager bu baax ngeen continuer ko collaboration bi avec le ministère aussi occasion la pour ma wax ni Mbàkke ñu ngi koy préparer un programme spécial de développement ni fi ndox mi amee incha allah ci wàllu mbay ci wàllu assainissement wàllu jàng wàllu paj statut Mbàkke loolu la laaj guddi yi ñu toll kon incha allah nu mu gën a gaawee dinañ ci taxaw fexe ba loolu mun a am pour le bénéfice de Mbacké kon ma leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm